tey ñu sant leen bëgg leen bu baax baax doon faral di def vidéo ci nit nag mais tey moom wax dëgg yàlla dañu gis koo xam ni marqué nañu trop xamuñu ko nag waaye danañ ko faral di gis ci TikTok bi mu def ab vidéo nag di sàkku nag vidéo bi ngeen partagé ko ba mu ëgg ci Aladji Malick TV waaye loolee nag am na ndax vidéo bi gars yi partagé nañ ko ba mu ëgg ci man cant ngërëm nag ñeel ko ñu diglu euh, li mu wax bu paree ñu ñëw ci tont bi ñu koy tontu. Pa Assane yow ak Aladji Malick TV yéen ñi nga xam ne nii yéenay wax wàllu football xaalis ba wax leen ñu fu mu ko yóbbu wax leen fan lay dem gars yi yéen ñi seen partagé leen ma ko ba ñu passé ñoom ñaar ñoom leen di ci wàllum football lu nu wax dama koy gëm léegi nag ñoom bañ daggee Sadio Mané xaalis ba nu wax fu ñuy dugal xaalis ba dañ koy jël jox ko supporter ya wala dañ koy jël jox ko roi Sane euh, lañ koy wax di jàmbaar moom it euh, ñu tentu question bi nga xam ne am na solo lool euh, bu fekkente ne xamu ko xaalis boobee dana dem ci keesu Bayern waaye du doon xaalis boo xam ni moom la ñuy jël di ko fayewaat ay joueurs ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko xaalis boobee yenn saa yi nga dégg ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi amunu lu ñu lekk wala ay ONC wala loo xam ne sax ay fonds la yoo xam ne ñoom waa Bayern ñoo koy am di ci yëkkati yeneen bagage yoo xam ne lañ ciy def lu bokkut ak daray fay ay joueurs ak yooyu parce que footballkat yi lañ leen di fay loole lu ñu organiser la ci wàllu ak ci wàllu prime ci wàllu li nga xam ne mooy stade yi ak ci wàllu UEFA ak euh, waa Allemagne xaalis boobee ñu segg mooy li nga xam ne moom la Bayern ni dundi ak i sponsor am waaye lii moom lu ci gën a bari dana koy jël jogleel ko ñi nga xam ni ñoo ko soxla bu doon Sénégal a tey ji dañ koy ñëw indi ko ci daara yi wala orphelinat yi nga xam ne am nañu fa ne te seen papa nekku noonu moom wala seen yaay xaalis boobee daal ci gàttal moom du doon xaalis boo xam ne moom la ñuy fayewaat ñoom Sadio maane waaye xaalis boobee ay ndimbal la gën a jige